vraiment kontaan naa kontaan naa <laughs> maa ngi leen di remercier ci ñi nga xam ne noonu ngay ñëwee. Mhm. pour seetaan ñu si nga xam ne mooy suñu déclaration. Mhm. te loolu dafa am solo. donc li am solo moom mooy. tey niñ ma yeewee. Mhm. alors booy na mu demee nag. monsieur le président waaw yokk ngeen ma fi tam. non yow yow yow yow ku ànd ak yow day kontaan. Ah, wax dëgg yàlla parce que man fu ma romb léegi ñu ne ma macha allah. ay jamono nag dama xiifoon dem di di di si osan yi di dem fu ne. non jax na léegi jax na naa leen jox nga lekk ba suuf. macha allah mais léegi kul naay sax. non macha allah booy waxatuñ dara. léegi jeunes yëpp mobilisé wu démb lañ réunion ñun ñëpp jeunes yi mais président li ñu bëgg mooy dañuy dem Casamance. yow bëggoo woon ñu dem mais ñun dañuy dem Casamance. demul dañuy dem ku dem dañuy dem ku demul dañuy dem ku dem dañuy dem. mu dañuy dem. non garaawul garaawul d'accord mun nañu dem mais est-ce que c'est sûr que nag mun demee du am ay ndax diwtiir foofu dafa am doole de. monsieur président. mooy li ma fi waxoon rek duñ dem quoi. mooy li ma fi waxoon rek. mun nañu dem ay Ziguinchor mais. fépp la ñuy dem dañuy dem Sédhiou dañuy dem ba Abéné dañ fay dem dañuy dem euh, Ziguinchor. xam nga dem Bignona bu ñu dem Bignona fa la dëkk. monsieur le président say garde corps jarul ñuy dem. ñun ñoo la say garde corps bii nii bul am dara looy jaaxle. gis nga ni nga nekkee suñu ginnaaw nii. ñun noonu la ñuy lay taxawoo. incha allahu rabbi jàppal na tey jii ne sa say garde yooyu mën nga leen wax ñu toog ñun ñooy ànd yow. ku dem dañuy dem ku demul dañuy dem ku dem dañuy dem. ku demul dañuy dem. waaw duñ fa yàgg ku dem dañuy dem. waaw duñ fa yàgg ku demul dañuy dem. duñ fa dañuy dem. déggoo li ma président boo bëggee ñu. boo bëggee ñu dem ba Casamance am fa 6 mois bu la neexee. non non bu ñu fa yàgg nañ taxaw jaar rek dem ko parce que xam nga xam nga moom xam nga diwtiir. Mhm. diwtiir dama ragal ne. parce que dama dëgg ay info xam nga dañu ñëw di la jox information. Mhm. mais dama ragal est-ce que c'est sûr bu ñu demee foofu du ñu am ay tolof tolof. monsieur président ñun mobilisation bi ñu def nii. Hmm. bu ko diwtiir gisee day daw. Hmm. lu leer la ma la wax. diwtiir ba gisee mobilisation bi ñun ñun taxawaay bi ñu taxawoo tey jii nii. mooy tey jii ni ñun dañu ñëw taxaw pour jàppale la. parce que parce que maa ngi ciy waxtaan ak soow mhm. Idi. waaw mu ne ma mburu mu ne ko mu ne ma nañ ci ànd ak tey rek. Mhm. parce que diwtiir moom lu mu taq rek day niin xam nga diwtiir comme que moo mën a dugg ci barigo diwtiir ba génn te taqul. moom en tant que diwtiir kon yàlla may na ko. ñàkk a moo ëpp doole. ñaka tang moo ëpp doole diwtiir léegi léegi léegi dama calculer quoi est-ce que buñ fa demee noonu mm-hmm. moom fa la dëkk Bignona moom mu ngi dëkk Bignona jàpp Sédhiou par des fois mu doxantu ba côté Abéné. xam nga Casamance ñoom ñëpp benn lañ dem Ziguinchor continuer après ñu jéem a dem côté. Abéné. ma pas ñu génn. non dañuy romb ba buntu këram. bu la neexee sax ñu dugg këram nuyoo déggoo li ma la wax est ñun bañ àndeex yow bal am dara loo tiit président bu la neexee yow jàppal ñu am ba 6 mois. waaw. léegi léegi léegi léegi yéen yéen yéen xanaa da ngeen ko da ngeen da ngeen ko da ngeen ko xuuxal yooyu foofu. ñun tiital nañ ko ba pare instant bii nii. instant yi waxatul kañ nga. mais man li mu noppi ñun la déggoo li ma la ñun la. déggoo moo tax ma ne courant du moroomu batterie cey bu lay maas da naan kër naan kër naan kër naan kër kër kër kër. kan mooy courant moom moom moroomu. yow mii yaay courant te xam nga ne courant courant. xam nga ne courant mooy alimenté ñëpp batterie benn lay alimenté te yow yaa alimenté ñëpp courant du moromu batterie cey lay maas da naan kër naan kër naan kër booy est ce ñu dem ba foofu ñu sànni ñu ay madd ay tol ay ma ne ma ne buñ ko saay na ñu lekk ko déggoo li ma la wax bañ ko sànnee ñun bañ bañ bañ bañ andeta du kaani saful dara daxaara saf andeta kaani saful dara daxaara saf booy yéen mooy may jar. non. dem naa Kaffrine. après mu neex ma jàll ke yooyu mu neex mais est-ce que Ziguinchor bi ko fomm. foo demaat day neex. kenn du yow Sall Ngaara Lam Tooro Buuru na ah waaw Kor Marème Faye bàyyi ba ay kii yooyu. parce que non non. defoo fi waxoo fi lu ñaaw. Mm. ba tax tey jii ni nga war a laaxatu looy laaxatu. kon léegi li ma waxoon ne naa ko def mën naa ko bàyyi. defal ma ne xoolal bu la neexee yow yaay xalaat sa xalaat ak boppam parce que sa xalaat rek doy nañu tey yow yaa defal daa defar Sénégal instant. yaa jàmbaarange yaa jàmbaar. yaa jàmbaarange yaa jàmbaar. boy est-ce que est-ce que est-ce que doo leen commencé fooy troisième mandat bi. Ah. est-ce que doo leen doo leen doo leen commencé est-ce que doo est-ce que doo leen commencé wax affaire troisième mandat quoi. ngeen wax ngeen wax ne ñun troisième la ñu bëgg doyalu ñu troisième la ñu bëgg est-ce que doo leen wax loolu. ñun doyalu ñu ñun de doyalu ñu. ñun doyalu ñu. troisième lañ bëgg ñun de doyalu ñu. troisième lañ bëgg ñun doyalu ñu. ñun de doyalu ñu. ñun doyalu ñu. ñun de doyalu ñu. ñun doo yaa luñu ñun de doo yaa luñu non déedéet dama bëgg moom moom mhm. moom moom moom diwtiir mhm. ngeen commencé def ci xelam troisième mandat bi quoi na xale yi ñoo ko bëgg amul problème moom mu xam ne booy yi ñoo bëgg loolu quoi ñun ñoo bëggagul nga wàcce ñun ñoo la soxla waaw léegi yaa ngi dégg man de booy ñoo ko Eh. ñoo ko bëgg. Eh, docteur man ñu wax ñoo ko bëgg ñun ñun ko bëgg ñun. ñun ñoo ko bëgg ñun. waaw te incha allah rabbi day allah. dafa tin dafa tin dafa tin